jaaxle bi nag dara waralu ko le problème est crucial super important pour la nation aussi mais tey jii li ñu gis mooy agriculture ëppul solo 94 milliards bërki démb bi fi ministre de l' agriculture waree jaar yéen ñëpp da ngeen déserté woon daw dem defi seen congrès monsieur le ministre pour revenir monsieur le président pour revenir sur l' affaire des 94 milliards moi je pense que ni on aurait bien que cette commission tey jii taxaw ñun ñëpp ñu àndandoo si pour l'intérêt de toute la nation sénégalaise mais li ñu gis mooy làq doom bëgg door doom je ne parlerai pas de la personne parce que nag am na agenda boppam ñëpp a yor seen agenda tey donte yéen a ngi campagne pour jéem a défendre l'indéfendable tey yéen seen bopp xam ngeen que ni vous ne pouvez pas avoir raison c'est une personne qui a eu à porter le combat avant vous il s'est levé avant vous il am amené le combat fi mu war a dem ndax yéen lu ngeen mënti def tamit bu ngeen paree dangeen koy delloo procureur de la république may laajte rek nag ndax euh, togo bi fi jaar bërki démb te muy seen yéen bi leen gën a tiital si lépp ndax da ngeen ne bëreet scandale am seen kaw ngeen ne noonu da ngeen di wut ay visa d'entrée teg fa ay milliards ça se comprend aussi nag parce que état du Sénégal ak régime bi fi nekk dañu am ay affaire au sommet de l'état même ces affairistes là moom la ñuy protéger moo tax kenn ñemewul commettre tey jii en su commission d' enquête parlementaire sur ça monsieur le président mu am beneen jàggeet jaar fi tey ñu bëgg fe jàggeet bëgg indi Mamour Guèye parce que Mamour si yéen la bokk moo tax wala nag may laaj foofu ndax dafa am sénégalais bu bokk APR wala sénégalais boo xam ne day nekk membre de l' opposition war ñu ba ñu war a mën a différencier sénégalais yi j'aurais bien aimé aussi tey jii ñuy défendre opportunité wu création mise sur pied wu commission d' enquête parlementaire bi ñu argumenté ko teg ko ci base yu leer parce que nag lu am loo xamante ni dafa nuyoo fayuñu ko tey jii bu ngeen nee ñu da ngeen bëgg plus clarté ci ci problème mu 94 milliards moi je me dis que y' a problème et le problème n'est autre que l'incurie de ce régime le problème nekkul fenn fu dul bëgg a làq doom dóor doom man nag personnellement je ne peux pas parce que nag il y va de l'image de cette assemblée assemblée bi dafa jot ñu delloo ko gëddam assemblée bi dafa jot mu solaat mbubb bu rafet ba mu solee woon ba mu soloon ba nga xamante ni député bu mësaan génn ñu wekk ko député bu mësaan génn ñu jox ko cëram parce que dëgg la daan wax te nag am na ku ko wax sànq fii nañu xalaat suñu yu bàmmeel lu waaye voté fii tey daa ko voté ji suba comme nag suba dina am te ala kulli aal day am du jaas nañu jéem a rafetal dëgg ki te wax te te yàlla tax monsieur le président laaj naa ko sànq di Togo scandale la ArcelorMittal scandale la wala ñu boog dañoo am lu ñu def ci biir wala ñu am ñu ñuy nëbb ba bëgguñu see wax tey ki njëlu jooy bëgg mbir mi leer 94 milliards leer ñu bëgg ko nëbb Mamour Gates mënta étouffer dit Jack Gates Mamour Guèye mënta étouffer euh, Bictago Guèye donc nañu leeral scandale yooyu moo ëpp priorité tey jii ñu bëgg gëlëmal askanu Sénégal bëgg diaboliser un candidat qui est sur le terrain en de battre campagne comme les votre candidat ngeen bëgg ko woonu fii tey amul jot boobu talu ko mënu ko talu ko mënu ko li ngeen tal yéen ba taxoon ngeen sacrifié woon le ministre de l' agriculture mu ñëw toog fii di leen xaar 4 heures kooku nee talu leen tey mu